sàmb bu ñëwee ko ñaan téeméer sax jënd crédit woote dëkk ba xam naa ne sama mbaam ma moom ba ma fay jóge ëmb na ba war naa mën doom xam naa ne bu doom bu gone yi xam bu gone yi xamul nuñ doom ji mën naa lool xar bu ñëw ma ñaan ko téeméer da nga def muy tëpp li mooy waa ci bees nga dama lay wax de bu ma nuyoo noonu nuyu ma nuyu kilifa man sa bàyyi ba ma nuyu da nga nuyu nuyu bu civilisé waaye nii nuñ koy defee mag nee na ñu ñoo jox ñu dama leen dama laa lay ah. ah, ah xamal li ngay defee man xanaa waxuñ la man la kan. ya ya xam naa yàlla baa ngooñ. teeyal ci man de. Ah. waaw teeyal ci man bu baax a baax a baax a baax xamal ne kilifa ngay waxal. ak kilifa nga. man gone du ma fontoo de. ah dama lay wax lu leer nañ nga xam ko. dafa yow napp nii quoi. déedéet napp ma damay wax li nekk ci man ndax xam naa ne comme maa ngi fi demaguma naa la wax man la kan. yow dama lu la. ah. yow dama la xam nga ni waxtaan dama lay laaj dama lay bu man li ma fi téye bu doon sama sago kon ma naam du fi jaar. ba lay laaj tax la mu war a samay këyit lay lijjanti. këyit lan këyit yi bëgg euh, NINEA ak compte bancaire. moo dem ko ay léeg-léeg la ko fët fët nga nga walaxu. ab ma ñëw Ndakaar pour lijjanti ko. fii allah akbar yow tamit nooy sama këyitu juddu bi. xam nga suñ mairie bi dañ ko doon defaraat léegi bi ñu koy defar fi fi kayitu juddu bi newoon gars yi di taal kayit yi jaawale ko taalaale ko mënatuma am juddu moo tax ma ñëw di ko rek li jënd allahu akbar yaa koy kóolu sa frère la fekk déedéet yow yow sawaay yow dama ko de yàggu de man naam balaa ñu fee def ñaar fukki fan ak juróom benn mu kii eh, fi benn six jours ko rek day des ñeenti fan sawaay sawaay bàyyi si caaxaan yi seen ñu lay xaar amoo jabar am naa jabar ak doom yu toll ni yow. nga bàyyi foofu jóg fii toog fii di jënd ko jóg léegi ka naa naa ay këyit ay affaire léegi dangay nga toog foofu bu këyit di génne saa wala. loolu gën na mu ñëwaat loolu mënut a nekk këyit yi may lijjanti mënu ma ko woon ginnaaw dama koy lijjanti mu sotti ma def ci li ma ciy def dem sama yoon këyit yi compte banque bi faaw ñu tijji ko. te saa bu nga ñëw indiwoo sax xam nga baykat bu bay ba am mbayam ñu tëj ko jaayut benn jaayut benn doomam gerte. foo jëlee loo gis ay saako gerte. loolu de wax nga dëgg moom ak la. saako gerte nga yoru ko indi ko lekk gars yi dañ koo peese ba pare te su ma mooy sama problème loolu ñu dagg sa xaalis yi. loolu laay buñ ko dagg erreur am. loolu dafa ma ma ma ma ma ma ma ébaissé loo nga foog ci ay jour wala nga di ut foofu benn pante la boo luwee ci koñ bi nga ko fay ma ma laa expliqué ko de. ñànk man seet si wu ma la sa baay laa seet si. waaye man sa baay yàlla dogal na ma moom jiboo nañ ci na maa téye ba sama kër sotti. dama ne waaye dëkkoo ci ndénga sama ndénga dëkk. waaw bu fekkee dëkk bi ma dëkk sa daf laa daf laa déranger ngeen wutal mag basang ko fi. waaw déranger na ma léegi. bu sa ñëwee ma wax na ma jox ak ma yalal fii ci ci di fi tëdd man loolu loolu loolu garaaw. waaw si nga wax loolu néew néew bi doo jox la da la nga wala fële nga wala franc dama lay wax rek waaw waaw yemal foofu rek parce que am na wax bëgg lu yomb weesu la ñoo toog franc ay xaw ma ñaata jour nga bëgg a toog fii fii ba xolte sa waaw vingt-six fan ak ñaata ci waaw ñaata ba yow yow damay collecté ji fa yomb de ma lay expliqué rek utal néeg boo luyee fii néeg waaw xool noo def ñaa bu ma dépassé de. ma lay wax waaw na nga yem foofu ak man rek man man xam naa xamoo ma nag. Ah, yow mi yaa ma xamut. walaay as fi xamoo ma. Ah, baax na xamoo ma de. ba tey baax na xam naa ne xamoo ma moo tax ngay waxee nii. ba tey baax na walaay soo ma xamoon ma ma dë ma ma ma man dama ma ma ma ma ma ma damay dëgg saxoon de. Ah. man foofu ma am ma am ma nekkuma dikk de masaale. dama lay wax de man dama lay ñuus man damay duma gone de maa gone man maa gone duma rek. ma ma ma mal mal. waaw ma ma ma pa. waaw ñus rek. ah yaa pa ñus rek. waaw waaw. man man maa gone. dóor ba muy bëgg a dee. ma rendi. ma ma pa. ñuusa ba latala sa day. jël juróom doo ko sa waa kaa sa bulu baawe wi. xëju bulu génn koy rati daayam. ah kan nga rati daayam. Euh, am na loo xam ne sax bu ma ko defee ci kër gi day nuyu affaire violence ndax ñëw ci kër tey di di jëflante ak tey mënoo ko. Kandal man demantewu ma ak yow de. man du ma demantee gone. Kandal maa gone demantewuñ. soo ko génn soo génn naa kat sa xool ma la topp yow da ngaa réew. góor nga kaw ma. man du ma toppanteeg yow soo génnee ma dëgg sax.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 59 75. Notre site internet www.cefas-du-6sénégal.com. li ngay bu ma ko sa bàyyi waxoon la may sax waaye comme yow yaa ma ko wax du sax bu dee góor nga kaay kaay kaay dam dag ma dóoree ma dóoree ma fayu de boo ma dóoree ma fayu boo ma dóoree ma ne man damaa toppante waaye ci biir kër gi loo ma def na ubbi sa ma ubbi waat sa kaay topp ma góor nga góor yàlla góor yàlla kaa topp ma la dem ci bayal feew ma ci bayal yow am nga fit na ma sa loxo laal non fi du ma laa na ma sa loxo laal tàppe nga yow yaay tàppe bu mag ma dóore ba ma dóore ma fayu de ma ñapaat sa xoon ba nga duul nga siir góor yàlla kaa génn a génn génn ma koo génn koo sama génn may saaga ma saaga dama lay nokk de dama lay ñuus ba nga duul laa la wax yow réewoo bu ba léegi yaa ngi tëll di wax ma nekk di di koy yoxasu dama lay ñuus ba nga duul laal wax nga naa man koy yoxasu yow nag jëflante yow jot na sa bàyyi waxu leen damay noqi gone daf laa war na ne bàyyi ngoon ñi moo ay ci ñuus yi gone dama lay ñuus ba nga duul te sa bàyyi du ci wax dara sa bàyyi xam na ma xam na ma bu baax a baax a baax yéen a fi nekk di wax rek waaye moom du wax nga bëgg nekk fii tël génn fi may moom damaa nekk ci kii bi sax yow léegi nañ dem ci bi da nga bëgg ñu dem ah nañ dem. xam su tooga ba ndaw tooga ba ndaw. yab de ma wax rek. waaw gone du yab de. waaw dama tooga ba ndaw. la xamal moom. dinaa la xamal moom. dinaa la xamal moom. paa yi ragal koor gi moom ku yabaate yabaate la wala ngay ëngas li di ëngas li ba ba ba naaj bi tàng ba ma une heure jot wala deux heures dootoo mën a wax dootoo mën a def dara. <laughs> man. Hmm. man ma rek. dama lay laaj nag ndax nga wala wooroo. xool ma physiquement xamee wax woor. dama lay laaj. damaa woor. waaw ah, baax na waaw jàmbaar nga de. pire. jàmbaar nga jàmbaar nga jàmbaar nga. macha allah macha allah bul ma catu. waaye naan nga ndox tuuti rek. làmmiñ baaxu tuuti nga naan ndox tuuti. naanum ay ay kaas yu fee de. waaw bu yem bi nga naan. taatu kaas taak toq benn guux koj. waaw mu nga àggale sa waaw waaw. Mm. Mm. koor gi. Mm. koor ren doon na war lool. waaw. des fois naaj bi day tàng des fois heure bi day taxaw. waaw léegi euh, xam nga lu ma bëgg. déedéet waxu ko ma ko. bàyyi ngooñ. waaw mooy paa bu paa bu ñaaw boobu. Euh, lu mu ñaaw rek soxore na ko. Hmm. <laughs> dégg nga hmm. waaw. moytu ko comme ban genre moytu ci lan. non damay damay bañ nga jàmmaarloog moom. dama kaa tegagul bët rek parce que yow yëf defe yaa nga ma def yow defe yaa nga def papa. fan nga ah, yow keroog fii bi mu ñëwee bëgg dugg man la bu mu fi duggu waaw ba nga ni ma waaw ma am ci yow confiance. waaw nga war ma. waru ma la. da maa war parce yaa ngi ci dugub dama koo dàq ni ko demal kër pataas nga toog fa. waaye dem kër pataas toog fa ma dugg ci néeg bi d nelaw mu yor dugg. mënuma koo dàq. papa yow defee nga rek. Eh. yaa ko bàyyi mu dugg fii yaa ko bàyyi mu dugg waaye billaahi walaay bàyyi ngooñ day mën a nekk di ci kër gi mënu ko ñu ñuus ko bu mu day. Ah, man numbe bàyyi ngooñ ju sa morom. mat na la bàyyi. ak yow bàyyi ngooñ mat nala la bàyyi. yow ngooñ ñun dañ kaa lijjanti bàyyi ngooñ yabaategul sax nekkagul defee sax moom di nga fi gis léegi. Ah, waaw mu gas ko fii ci biir kër gi suul ko waaw ko ba mu dee du mujj fen. yow yaa koy gas. maa koy gas fii ci suul ko wooyu sapeur pompier. nee na sapeur bàyyi ngooñ bu ngeen dee jàmmarloo doo ma woo. lan laa lay dee yow la ma tax keroog nga nga dëggu ci bu ma jàkkaarloo woon ak moom xoolal bët bi laa na poj. après def nan bët bi gas ko suul sadigul sax ñun ay sadik lañ yow li ngay wax ñun moo ma ci daaxal del wax man. ñaango nag aliéné bi ah. waay yow ah, kon yow boo àndee ak ñànku ci koy attaqué. waaw damay ànd ak ñànku di ko fa. waaw rek doo ko attaqué. man kese dama koy attaqué. ba mu ko fekkee ba ne dama koy bett. après nga def ko ma jam ko mat ko xaj jam tuf tuf. waaye moom ma yow lan la la def. neexuma. neexuma. waaye fii du sa suma kër baay la xanaa ma amul dem kër baay. maa kër gi maa ko moom. waaye boo ko moomee lu suñu yoon yaa suñu baay suñu kër baay bu la méttee nga dem sa kër baay ku ne am na kër baay yow loo tere dem sa kër baay. jëw yéen wooree rek di tàng fan dama fenn fii lay tëdd boo xam sama bopp si si soo kale laa xool wax ba aya eh, li bokk de waxu laa la wax da ngay dog de efes woo ñàkk nga dog léegi eh ñu jógal ci biir ngay bal bayal jógal duul naan woor naa te lekk àll bi yëpp jógal ma waxat da duul de da ngay duul ba ma waxat da ngay duul demal aja léegi da ngeen may song waxaat ma da duul aja waxaat ma da duul rek <laughs> waa napp naa ko bàyyi ngoon faw ma dem faw ma faw ma faw ma ko fa ba xaalis bi génn ma jël li may jël bàyyi ngoon ñibbi ci mënatul des ci kër gi awa ba bugg ko ñànk bugg ko mëndumbe bugg ko pataas benn néeg la am bàyyi ngoon fan laa ko war a yóbbu waay Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et bouteille fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel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 41 06 06. Vite au jus, le jus fait maison.